TV moom moo ko daal di joxe la moo xam ne rek moo di lutteur bi mbër la woon di maam góor gi njaay moom dafa daal di rek euh, génn àdduna gannaaw ay tir euh, grenade lacrymogène yu ñu dooroon ba mu dugg ci këram ci la maam góor gi njaay daal di mujjee ñàkk euh, bakkanam ak manifestation yi mi ngi def premier premiers victimes ki nga xam ne nag moo daal di génn àdduna niki tey jii di maam gi njaay nekkoon ab mbër boo xam ni Fass la dëkkoon yàgg naa def jaloore ci réewum Sénégal ci arène sénégalaise bi euh, moom daal ni ki tey jii rek dañu daal di jot xibaar boo xam ni daal moo ñuy xamal ni daal dafa daal di mujjee bak euh, ñàkk bakkanam gannaaw bi nga xamee ni rek am na ay tir grenade lacrymogène yu duggoon ci këram xam naa du ñàkk rek dafa amoon jafe-jafe euh, nokki moo taxoon rek mu daal di mujjee ñàkk bakkanam mu mel ni Mor Bamba premier décès bu ñu daal di enregistré ci manifestation yi bu fekkente ni l' information est bu fekkente ni aussi daal dinay eh, wér eh, ni ñu xam ne daal di maam góor gi Njaay daal dinay mujjee ñàkk eh, bakkanam bu ñu sukkandikoo ci information bi ngeen jàkkaar lool yéen ñi nga xam ne yéen ñu suivre gannaaw ay tir grenade lacrymogène yu daal di jóg ci la mujjee ñàkk bakkanam alors ban ban jàngat ngeen di def en grosso modo Mor euh, yow nga jiite ko ban ban jàngat ngay def ci premier victime yi nga xam ne mi ngi am gis nañ aussi sànq Bamba mi ngi koy souligner mu di euh, benn caméraman bu flash info moom itam dañ ko atteindre par balle euh, sa Anne aussi nekk journal nekk journaliste Seneweb moom itam daal dinañ koy arrêté waaye itam am na yenn ñenn ci suñu ay mbokk journaliste yoo xam ne dañ leen a dóor ay grenades lacrymogènes euh, maltraité leen ba ñu daal di daw ban jàngat ngay def en grosso modo. waaw xam nga lu ñuy wax naan euh, ay du yem ci bopp borom parce que tey dama jàpp ne euh, maam góor gi ginnaaw bu ñu ko ñaanalee yërmande yàlla ala ali kenn mënul romb lu passé. li nga xamante ni moom mooy euh, sa destin mais lu ci mën di xew mooy dafa am loo xamante ni moo koy provoqué tey li am wax dëgg yàlla dafa ñaaw ci image Sénégal ñu dem ba un moment donné ñuy dund loo xamante ni peut-être parce que bu ñu xoolee euh, aspect sanitaire bi même ñun ñi nga xamante ni sax ay ndaw lañu nekkan sur le terrain dañ doon am ay jafe-jafe pour mën résister par rapport ak lacrymogène yi nga xamante ñu ngi doon nooyi waxantuma koo xamante këram la nekk non seulement nekk amaana peut-être biir néegam mbir mi mën a ñëw ba fekk foofu da ngay xam ne kon am na si loo xamante ni wax dëgg yàlla bu fekkante ni état mu ngi wéy di seetaan euh, ba lu mel noonu di wéy di gën di multiplier wu parce que aussi lu gën a ñàkk solo moom mooy nga tookanikat naay wéy ay motukaayam banditisme d'État te dama jàpp ne su boobaa askan bi ñoom ñoo ci dee te par contre état mooy ki nga xamante ni moom euh, a sécuriser li nga xamante ni moom mooy askanam parce que tey dama jàpp ne lay am wax dëgg yàlla vraiment lu ñuy ñaawlu la encore une fois comme ni nga waxee bu fekkante ni information bi lu wér la waaye lu ci mën di xew moom mooy en miniature li nga xamante ni loolu la gis actuellement fi nga xamante moom mooy Sénégal wala fii Dakar nekk na mbir boo xamante ni lu doy a bañ ak ci moom mooy toog di seetaan ba liy raam ci ñàkk bi la jëm dèjà causé na ay mort en tout cas ñu ngi woy di gis ay blessé peut am na ci li nga xamante moom mooy presse di nga ko déggaat ci ñeneen ñoo xamante ni dañoo génnan di def li nga xamante moom mooy seen parce que ku ne xam ne ne droit constitutionnel la notamment article ak 10 bu constitution bi kon ça veut ni lim dem ba causé bandi ay mort parce que dañoo def li nga xamante ni moo ko metti dafay mujjee transformer xelam euh, boobu noonu en te su boobaa lan la jur day def faire face te su boobaa mën na indi leneen te jàpp naa la am yëpp wax dëgg yàlla parce que am nañ benn état boo xamante peut-être li mu waroon def en terme de sécurité moo xaw a manqué moo tax askan bi aussi tamit way di wane seen bopp te moo jur mais jàpp naa ne vraiment euh, c'est honteux dans un état de droit encore une ñu wéy di gis loo xamante ni dañuy wéy bàyyi nit haine nit ñi di animer en tout cas doomu aadama yi da xam ne parce que am nañ ay dirigeants yoo xamante ni euh, bopp réew ma matuñu yow sax amaana peut-être en de gestion yow lañ gën wóolu ko ne ñoom su boobaa nag lan la yóbbu moom mooy li ay borom xam-xam doon wax kanaan kat démocratie dafay permettre ñu xamul mënuñu ñuy wéy di diriger ñi nga xamante ñoom ñoo xam ñoom ñoo mën su boobaa nag bu fekkente ne ay ignorant ñooñu jiite moom lépp lu ñu mën di arrivé nañu xam ne carrément ñun ñoo def erreur jël suñu réew jël suñu moyen yëpp jox ñoo xamante ni vraiment amuñu performance bi amuñu compétence bi amuñu lenn loo xamante ni peut-être mën na leen permettre à ce que ñu ji ji ma manager yu ni mel. Mm. mu ngi noonu euh, Bamba gis nga ko comme ni ko Mor waxee sànq mu di les premiers dégâts commencent à vraiment di génn di génn ci euh, réseaux sociaux yi mais tey Bamba gis nañ aussi bi nga xamee ni euh, kii di opposition bi dem nañ place de la nation ngir rek daal di manifester comme expliqué sànq mu nekk benn droit bu absolu de constitution bu Sénégal moo ko may ñi nga xam ni rek ñoo yeewoo ci réew mi am na ñenn ñoo xam ne gaza nañ leen Mame Boye Diao bi nga xam ni dafa nekkoon ci gouvernement bu Macky Sall tey ji dugg ci opposition politique opposition Sénégal bi daal dinañ koy gazé moom ñoom Cheikh Tidiane Dièye ñoom ñëpp alors euh, boo revenir un tout ci li nga xam ni moo xew fële naka nga koy décrire qu'à chaque fois bu sénégalais ci def seen droit les plus absolus ñu gazé leen euh, dóor leen ay grenades lacrymogènes am ñoo xam ne sax dañ ciy blessé ba am ñoo aussi ñoo xam ne dañ ci ñàkk seen bakkan waaw li ma doon wax sa suba mooy gannaaw ba euh, ki nga xam ne moom moo génn àdduna euh, di loo xam ne tiis la tiis la parce que tout à l'heure je pense suñu ay confrères yu sans limite demoon nañ ci kër ga di recueillir yenn ci ay xibaar en mu doon loo xam ne lu mënoon mën a ñàkk la lu mënoon ñàkk la bu fekkoon ne respecté nañ li nga xam nag bu fekkee dafa bëgg a toog dañuy gëmloo que ne dafa am crise institutionnelle wala dafa am leneen lu tax ba mu retiré waat wala mu abrogé l bu koy ku doon convoqué euh, li nga xam ne moo di fii ci diwaanu Sénégal maintenant nag je pense que loo gis na rek waxtaanee ko aussi daa nekk loo xam ne lu am solo la euh, ci manière bi ak nu mu ko defee c'est toujours discutable pourquoi parce que boo demee bay dalal ñu rëkkale waroon nga mën a dalal ñi mais apparemment depuis euh, li nga xam ne moo di une bonne lurette dañu gis ne kat lépp lu xeetoog wàllu manifestation moom dañu faral di ko interdire fii ci diwaanu Sénégal commencé wu tey moi je me rappelle avant euh, cette mobilisation de f bu ñu amaloon au place la nation lépp lu ci jiitu ci wàllu manifestation dañu koy interdire dañu koy aaye malheureusement dafay virer ci arrestation ak yeneen i mbir yoo xam ne quand même mm-hmm. dina daal ci ay doomu aadama ma jàpp ne nag ay mbir yu yoo xam ne aussi pour man état bi nga xam moom mu nekk la garant kenn ku ne war na def a aar Sénégalais ci kenn kenn ne ak foo mën a ne ak li nga xam ne constitution bi aussi moo ñu ko permettre maanaam fekkee da nga am lu la métti am nga droit kat nga dem bind autorité maanaam nous sommes dans régime déclaratif bu ko defee nga bind kilifa yi ñu wax la kat euh, nga wax sa itinéraire fii fii laa ko bëgg amal heure bi heure bi laa koy amal bu ko defee ñu indi ay dispositif mhm. teg ko encadré ñu war ko mën a amal mais tey quest explique un peu li xew Walf ay nit yoo xam ne toog nañu am na lu leen métti euh, toog di wax après tout suite ñu lancé ay grenade ci doomu aadama yoo xam ne ñu ngi taxawoon et quand même doo leen jàngal seen liggéey mais quand même boo koy door sax kanaa nga def benn alerte mu daal ci keneen mais mhm. ciblé ay nit door ko ci digg bi là je pense ça a été tellement compliqué nag je euh, euh, wax kenn xamul looy bàyyi et que dama jàpp ne Sénégal li muy loo xam ne kat lu mu mérité la li muy loo xam ne loolu lañ doon xaar li ñu xaar actuellement nag mooy à que ñu jéem a def kéemtalaay kattan ba lii nga xam ne ñu ngi koy dund actuellement bu fekkee am na ay kilifa yu si mën a toog wax pour que ñu trouver consentement ci ni mu gën a gaawee mën a wéy di amal li nga xam ne mooy élection ci ni mu gën a gaawee ce serait quasiment important mais si ça continue comme ça ça risque vraiment d'être compliqué ça risque vraiment d'être li nga xam ne moo woon ñu bëree tey am nañ jafe-jafe ci wàllum oto pour ñibbi ñun ñi déjà bu ñu wàccee nañu am tolof tolof ci oto pour war a ñibbi maintenant avec tous ces couacs yi nga xam ne ñu koy dund est-ce euh, je pense am nañu ci ay gaañu gaañu yu bëri am na ñoo xam ne teg nañ loxo boo xoolee image bi nga xam ne moom soxna suñu teg loxo euh, gis niñ koy brutaliser di ko dóor ci àdduna wërngal këpp mu doon image bi ñaaw ñaaw pour man jàpp naa ne éventuellement